أجمعنا الحمد لله الحمد gi ak taalibe yi ak donga yi maa ngi fab nuyoo boobu nag di ko teg ci loxol Sëriñ Hamsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad mu tasaare ko ci mbooleem njabootug Sëriñ Tuubaa gi fi teew yépp wax ji jarul muy gudd li nu andi fii mooy Cheikh Omar Diagne mi nga xam ne dafa dëkk di tooñ sëñ tubaa di tooñ njabootug sëñ tubaa te kenn téyewul loxoom xamal ko ne ko ki ngoy tooñ mbooloo mu ko yaakaar te gëm ko ñoo topp ci ginnaawam dafa jot nag jëmm su fekkente ne nee nga du sa référence booy lim gaa yu baax ya doo ko ci boole booy lim gaa yu baax ya doo ko ci boole man du sama référence àgg ci nañ indi am mbindam mi nga xam ne nee na ca lawhul mahfuz la koy tuxale teg ko ci taabal ji ñu càmbar te moom mi bëgg a càmbar waxi Serigne Touba maanaam jéggul arab mokkalul alquran maîtrise wul dara ci diine waxam yépp ay njuumte nga ciy gis kon loolu li muy bijj rek mooy ak tooñ gu màgg a màgg a màgg màgg lay tooñ kon nag yéen waa réew mi nu ngi leen di interpeller ngeen téye ci loxob jëmm jooju ñuy wax Cheikh Omar Diagne xamal ko ne ko Serigne Touba du fawukaay du ku ñuy tooñ ndax pas-pasub jàmbur caaxaan da ca jëmul pas-pasub jàmbur caaxaan jëmu ca nun murid nag li ñu war a xam mooy Sëriñ Tubaa garab la garab nag ay bànqaas dañ caa ne ay car ne ca ay xob ne ca bànqaas yi ñooy doom yi car yi ñooy seex yi xob yi mooy taalibe yi waaye nag bànqaas ba féete saw ak ba féete penk saa bu garab gi meññee doom boo ci dagg rek la banqaas ba féete saw di saf ba féete penku it loolu lay saf ndax dañoo jàpp ci taatu garab gi te taatu garab gi mooy Serigne Touba waaye jamono jii nag ñi ma ko gisee mooy képp ku toog ci sa branche ne man sama branche rek mooy branche faaliwu ma taatu garab gi ba gis saay saay bu mel ne Cheikh Omar Diagne yor aw sémmiñ jëm si ci taatu garab gi bëgg koo dagg nga ne feeg laalul sama branche aw ci moom soxla bu taatu garab gi daandoo bu taatu garab gi daandoo nga ànd ak sa branche daanu te taatu garab gi mooy Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Omar Diagne déclaré nga nu guerre danañ ko toppanteeg yow ba mu des walaat wala des na la riic ci sam ànd wala ñi la war a wax dëgg wax la dëgg na la Serigne Touba du ko ñuy laal du ko ñuy tooñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Touba بالواجب سيح الملك الحاج مالنا الحمد لله